nouvelle manière une manière beaucoup plus productive de de de de faire en tout cas la politique à travers le l'autofinancement mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy samay ñoom ñi nga xam ne gëm nañ ma nan participer ku nekk tey jii ci li nga xam ne moom la la yàlla dénk ñu mën a dem utiliser moyens yooyu noonu defee ci campagne électorale mais pas tey jii nii ñu jox opportunité ministre bu ci nekk DG bu ci nekk. moyens yi nga xam ne ni état mettre na ko à ta disposition nga bëgg ko utiliser à l'encontre des populations da ci a entrer war na noo ma dans dans dans une logique de légiférer dans ce sens-là mooy bu ñu une fois maintenant que ce gouvernement en place réussira à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale li nga xam ne ne tey jii war na bokk seen mbébét mooy revoiraat li nga xam ne ne moom mooy la loi sur les partis politiques la loi de de de de de 89 loi boobu il faut ñu revoiraat insérer waat en tout cas dans dans dans dans ce corpus là dans ces dispositions là li nga xam ne tey jii moom la war a financer euh, euh, parti politique li nga xam ne tey jii bu élection jotee parti politique yi noonu la war a financer seen i campagne loolu yaakaar naa dañ ko war a def loi de telle sorte que dans l' avenir kenn dootul utiliser ci moyens d' yi nekk à disposition di ko campagne di ci ger askan wi di ci def yoo xamante tey jii nii kat les préoccupations constaté woon nañ dernièrement financement bi nekk ay financement yoo xam ne parfois c'est des financements yoo xam ne danañ jógee à l'étranger ay financement yoo xamante ne aussi nii dañ ko doon jëlee ci loo xamante ne tey jii mooy nos finances publiques je crois que c'est pas la meilleure démarche alors euh, bi du bu baax mais Abdoulaye Mbow euh, lu mu ci mën di nekk euh, au-delà même de financement yi ma ñëwaat ci gars yi ndax sànq foofu laa nekkoon ak yow mais son bi moo la ko xawoon a xañ tuuti le fait nga feesal quinze mille euh, bu symbolique am ñu des ci am ñeneen ñoo xam bëggoon nañ ñëw ñëwuñu ndax indicateur la bu fiable bu soutien euh, bu électoral wala c'est tout simplement comme li ma laaj kii rek résultat la d'une bonne organisation bon c'est c'est loin d'être résultat d'une organisation même s'il y une bonne organisation dafe naa ne ku ñu ne ñëwal meeting dafa da ngay fay pour dugg <laughs> boo ñëwee c'est c'est c'est vraiment volontaire mm-hmm. volontaire yàlla par rapport à un engagement bi nga xam si nit ki la woo mais également volontariat qualité de conviction par hmm. rapport fii nga xam ne fa ngeen bëgg ànd doo jëm fa jëmale fa réew mi hmm. ak jëmale fa si li nga xam ne moo di seen seen ci politique tout à fait donc loolu moo fi nekk hmm. euh, boo buggee dugg si yeneen interprétation yi gis nga ñu koy jéem a def ils verseront dans des élucubrations renversantes aussi simple du leneen gis nga encore une fois euh, li nga xam ne moo di euh, fundraising mooy def si parti politique d'habitude da nga daan gis da a daan président bi fi nekkoon jox naa leen poste jox naa leen waaye te si perte sa localité dinaa la dàq loolu loolu nga déggoon président euh, jamono waaye nga gis koo xam ne dafa ne organiser meeting d'entrée mhm. meeting rentrée politique am mhm. mu organiser meeting mhm. mu ne dépassé na si li nga xam ni Euh, dépassé na si li nga xam ne moo di moo di daanaka cent millions. Mhm. meeting rentrée politique à Louga. nga gis ñeneen ñoo xam ne it di ils ont dépassé quatre vingt millions. Mhm. pour seen rentrée politique. mais ñoo ñu di ay fonctionnaires. ñu tabbalee ñu nekk ay post si ay postes de responsabilité. nekk ministre wala nekk DG. mais comment ont-ils fait pour mobiliser de telles sommes pour véritablement seen rentrée politique. mais c'est problématique. mais tey nga am ku nekk si nguur. war a mën a tibb si li mu yor caisse noire yàlla xaw ma lu mu doon ah. Mhm. waaye tam ne loolu laaluma ko damay woo sénégalais yi nga xam ne ànd nañu ak man. Mhm. ñu joxe ñaar dërëm ñetti dërëm fukki dërëm million cinq cent mille lu wa lu waay am. Mhm. pour que véritablement ñu mën a dem si li nga xam ne mooy dëgg dëgg dëgg euh, seen seen campagne électorale mais c'est inédit. c'est inédit. c'est une première dans l'histoire fii. musta am. donc ji gis nga loolu boo ko nanguwulee. Mhm. bilaay da ngay sonn rek. Mhm. parce que nga nekk si opposition. nga nekk si opposition daanaka ñu financé la nga woote fundraising. nga am ay trois cent yi quelques millions. Mhm. nga nekk au pouvoir nga def fundraising tu as près de cinq cent millions. sa est inédit. donc de ce point de vue là. il faut impérativement. que gars yi bàyyi li nga xam moom la ñuy yëkkati non Euh, woote bi mën na doon source de wala xaw ma source de nangam euh, si xaalis biy ñëw mais xaalis biy ñëw mais sénégalais ñoo ko joxe. Mhm. en toute transparence nga war a mën a dugg si plateforme yi vérifier. Mhm. xaalis bi euh, provenance bi fan la kan moo ko joxe. Mhm. donc jibi amul leneen loo xam ne da nga ko siy andi. lu dul yow fexeel ba liggéey pour xaw a am as tuut bi nga xam ne ñii am nañ ko. gannaaw bi nga xam ne sénégalais jox nañ leen nopp ak baat donc pour dire vrai les gens qui sont venus sont venus avec conviction dañ ko gëm moo tax ñu ñëw fa dañoo gëm moo tax ñu dugal seen xaalis kon boog leneen loo fi wax en réalité da ngay sonal sa bopp te waxu politique kese moo tax ngay wax moo tax it effectivement il faut quand même que l'on revoie après sa modèle de financement des partie parce que parti yu fi bëri si nguur gi fi nekk yépp ils ont utilisé et ils ont abusé de l'argent justement du contribuable sénégalais mm-hmm. ils ont usé et abusé si li nga xam ne mooy xaalis bi nga xam ne gafagak réew mi la mm-hmm. parce que amul benn ministre boo xam ne da nga ñëw au pouvoir ñu tabb la ngay doog a mën a mobiliser ay millions pour politique mm-hmm. lan moo doon xew campagne bi waaj a jot ñu ne la euh, responsable bi ministre bi wala DG bi joxe na joxe nañu xaalis bi génn na léegi dañ ko tas. Mhm. comité beeg section beeg fédération départementale bi ñii jot nañu deux cent mille ñii jot nañu cinq cent mille ñii jot nañu un million ñii jot nañu cinq cent millions. Mhm. loolu nga doon gis. Mhm. kan moo ko doon joxe ñi nekk ci bopp ba. ñoo doon joxe xaalis boobu. donc pour dire qu'en réalité loolu mooy forme de la pire forme de corruption. loolu mooy financement occulte. amul loolu mooy dépravation financière. <laughs> mais boo demee ba am nag foo xam ne Kumba ak Georgette ak Henri ak Moustapha ñooy cotiser pour jox la parce que en réalité loolu euh, ku si mën a liggéey ba am ko moo gën fopp ngay xaar effectivement leneen ñeneen ñu si bari fii. dañ la mhm. ñu doon wax ku yorul fii xaalis kenn du la kenn du la topp. dëgg fale nga yor koppar ba ngay gis ñoo xam ne bu ñu amee base c'est quand ils ont été nommés ministres. la ñuy doog am base. bu ñu bu ñu amee base mooy jamono ju leen nommé DG nit ñi xam ni instant yi yor nañu te politicien joxe lay def enveloppe yeeg yooyu meeting bu amaan da ngay gis ñi ko organiser ñooy mm-hmm. loué njaga njaay ak carapit mm-hmm. ñooy defar t-shirt joxe ñu financé achat des t-shirt mm-hmm. ñooy joxe sandwich ñooy joxe paas voilà deux mille cinq cent trois mille cinq cent cinq mille pour mobiliser waa koñ bi pour motiver leen ñu dem mais fi nga gis ay nit yoo xam ne ñoo ñoo jógal seen bopp taal seen oto bopp loué seen oto bopp débrouillé ba yegg foofu paas waaw paas dugg pour salaan meeting mais écoute il faut l'accepter cest à il faut l'accepter moi j'ai eu des réactions de yu yu waxtaanal de la Côte d'Ivoire euh, du du Burkina du Togo ay confrères yoo xam ne souvent dañuy tàmm waxtaan surtout des fois ñuy intervenir ndoo si benn télé au Cameroun propre lu si ëpp par Zoom avant dañuy avant ñuy dugg si édition bi dañuy waxtaan. Mm-hmm. mais ñoom seen wall bopp ils te disent qu'ils sont surpris. ils comprennent pas. voilà ils comprennent pas en réalité comment justement un homme politique. Mm-hmm. war a mën a am une telle envergure au point de organiser meeting boo xam ne da ngay fay. Mm-hmm. Ah, mu ne parce que Afrique loolu doo ko fi gis. nee na problème voilà Afrique doo ko fi gis Afrique ku yor nguur da ngay tëbb kees di jox pour ñu mën a tabax baas mais Abdoulaye. ku mel noonu mu am ci réew mi naka lañ ko mën a utiliser pour au moins parce que li nga wax moo tax ma laaj la loolu vendre la destination sénégalaise. mais xam nga aujourd'hui li ëpp solo mooy vendre la destination sénégalaise c'est travailler surtout à ce que ñoom référentiel bi ñu teg ci kaw euh, euh, ci proposé ci sénégal yi. Mm-hmm. ñu war ko mën a appliquer ba mu commencer jur njariñ gu wóor. Mm-hmm. Mm-hmm. y a pas autre chose en Djiby mm-hmm. tey ni nii que lu ñu ko mënti mënti mënti mënti toppee aujourd'hui il sera jugé par rapport à un bilan donc bilan boobu nag la ñu war a mën a liggéey pour mieux participer à vendre du Sénégal mais au-delà de tout constat premier ministre la boo xam ne dafa am une légitimité débordante mm-hmm. une légitimité débordante la am te aujourd'hui il reste un exemple en Afrique parce que mhm. laata nguur jël nguur di am mhm. gis nga ay parti yoo xam ne dañoo dissoudre dañoo tas seen turu parti jël turu Pastef solo la non du pays ñu def sigle bi mhm. génn es bi nga xam ne moo mooy dupp Sénégal boo dee Cameroun ñu dafa see boo dee Togo ñu dafa tee boo dee Burkina ñu dafa bee mu nekk BAPTEF wala PACTEF wala et cetera et cetera donc loolu moo fi nekk kon kooku déjà beaucoup d'Africains s'identifient à lui et booy xool jaar-jaar ak li nga xam ne wër na ko dafa am solo parce que pour certains confrères africains ils voient du Thomas Sankara par rapport à un discours. Mm -hmm. pour d'autres confrères ils te disent on voit du Lumumba par rapport ak yenn et cetera et cetera si ñoom ñoom nu ñu koy gisee. donc pour dire que modèle la boo xam ne si africain yu bari en tout cas. Mm-hmm. wala ngay suivre yenn débat yi si yenn chaîne de télévision yi en Afrique. Mm-hmm. tu te rendras compte. que les gens en réalité ont une fixation ñoom ñi ngi jàngat nit ki alors que fii les gens certains politiciens ont un problème non pas avec li nga xam mooy système bi nga xam ne sénégalais ñoo ko fal à 54 pour cent mais ñoom il ne parle que de l'homme c'est-à-dire que ñoom donc pour dire qu'ils ont un problème avec la personne parce que pour ñenn yi ils te diront mais siis day am parce que tey xale xale xale bu dëkk fii ginnaaw Sénégal set mm-hmm. Pape Thion bu ñëwee day gaare Range Rover. Mhm. bu ñëwee gaare benn Mercedes am. Mhm. Jibi ñëw andi benn Ford bu bees tàkk. Mhm. Pape Amadou ñëw andi beneen beneen fanweeri ado ah man su ma ñëwee damay taxaw si buntu kër gi fomp ñaq bi mais bu mu ñëwee maa tebbi xale bi. <laughs> waa léegi yéen ñi nga yar yéen ñi yar borom yëpp waaw daa doole yi day naqari mais d'ici dix ans sax mënoo too doo leen ma mën a waaw voilà léegi les gens pour dire rek que nit yi dañuy naan fonctionnaire fonctionnaire boo xam ne euh, impôt et domaine la nekk di fayeeku salaire salaire la doon fayeeku mm-hmm. amuñu mënuñu amuñu ay lii amuñu ay lee moom moo ñëw jëkki saay mais li ñu waroon am ñun ñëpp ak suñuy moyen mu bëgg ko jël kii mu ñëw buub lépp. waaw. bon lu ñu waroon liggéey sa massification ak ñu financé lépp moom mu ñëw rek zone yëpp topp ko mais les gens ne le supporteront pas. les gens ne le du ñu duñ ko mën a accepter. Euh. alors que en réalité il faut nga nangu ndogal boobu. ndogal boobu il faut nga nongu ko mën a jàngat nit ki xool stratégie am pour pouvoir dérouler ta propre stratégie. mais boo ko defulee itam na ngay ah, soxla parce que moom bu ma ko déggee ci bi muy wax ci biir discours bi dafa mel ni dafa jàngoon ses adversaires à l'époque parce que mooy bi mu defee discours am bi di ñëw ne woo les avocats après explique leen ne leen lii waxi politique la bàyyi leen ma def kon dafa mel ni jàngatoon na moom ses adversaires fii en dehors de gis nga fii kenn lañu fi amoon koo xam ne il reste un symbole si seen politique Sénégal mooy maître Abdoulaye Wade mm-hmm. c'est un si seen politiku Sénégal par rapport ak fi mu tàmbalee li mu jànkoonteel lu mu opposé wu si wàllu at vingt six ans yaa ngi dégg dem ba découragé mais bu mu ñëwaatee Sénégalais jox ko te véritablement il a fait face à un régime qui a fait quarante ans si bopp dëkk bi donc symbole boobu nga amoon jeunes yi topp ko tu te mais li ñu ko toppee woon lan la. Mhm. Abdoulaye Wade moo ko fi am. Mhm. Abdoulaye Wade nag bu mu ñëwee Sonko dafa am li Abdoulaye Wade am ba par multiplier ko par nangam nangam nangam nangam. voilà donc il faut nag loolu nga accepter ko. parce que tey jii nii ka doon tuuti la Abdoulaye Wade ba fàtte woon ko. Mhm. Abdoulaye Wade jour bi muy ñibbi si Sénégal en quatre-vingt-dix-neuf déjà à la veille de la présidentielle de deux mille. li ko toppoon si nit da ngay xam Abdoulaye Wade muy ñibbi si waat en 2014. après avoir perdu le pouvoir. li ko toppoon si nit da ngay xam ne kon kii am na loo xam ne jagle la te jagle la bo jagle boobu il faut nga nongul ko ko mm-hmm. kon boo Sonko li mu am jagle la il faut nga nongul ko ko mm-hmm. pour xool itam yow naka nga war a mën a amee as as as lëf si li nga xam ne moom nga bëgg a def mais sinon Jorin ah. gis nga tu seras là gis nga lan mooy di kàddu gi hmm? ay ay euh, man du ma utiliser même le mot ay narkat ñoo nar nañu nar nañu pour pour ne pas répéter si ñoom mooy yu ñuy wax. Mhm. parce que pour man du teggin. Mhm. du du teggin. nga koy wax nga koy wax kilifa. président de la république boo xam ne aujourd'hui eux ils oublient que c'est un président qui n'est plus politicien parce qu'il a démissionné de toutes les instances du PASTEF gars yi dañuy fàttali et c'est une première voilà donc donc am na ñuy wax mais kon boog ñoom ñii nga xam ne bu fekkee ne ñoom dañuy nar ñi ne ñoo nar euh, jibi ba jël dëkk bi nekk si nguur di nar waaye ñoom waxkatu dëgg yi bu dee dëgg lañuy wax lu tax ñun topp ñu leen. Mhm. c'est une question bu dee ay narkat ñoo fi ne lu tax ñoom waxkatu dëgg yi ñoom nit ñi topp ñu leen. Mhm. moo tax kaddu na rafet. kaddu jubal ko. kaddu rafetal ko. Mhm. politique nag c'est chez nous qu'on qu'on dit que tout permis mais on comprend parce que pour man il faut utiliser. les mots les plus salaces pour paraître plus important waaw pour paraître plus important alors qu'en réalité en réalité tu deviendras la personne la moins importante si li nga xam ne mooy euh, échiquier politique au Sénégal et je pense que loolu nag il faut que gars yi xaw a remodeler un peu le langage polisser li nga xam ne moo di langage et le comportement pour mën a véritablement mën a yegg dara mais euh, yenn jeux yi yi ngay jouer du la andil njariñ te doo si jëlee njariñ voilà un additif par rapport ak discours démb bi yéen ñaar euh, yow est-ce que sa micro baax na sa xaar ma dem ci cuun en attendant cuun mm-hmm. euh, donc euh, au-delà de financement au-delà de appel à la mobilisation au-delà de de organisation ou mobilisation lu mu ci mën di nekk mais le discours démb on a vu donc delloo njukkal les martyrs delloo njukkal surtout la Casamance donc bi nga xam te ne ñoo ko permetre mu gagner du temps jusqu'à ce que mu yegg fi mu yegg donc euh, du côté contenu bi yow ngay kuy jàngat euh, ay wax euh, donc lan lañ ci mën a jàppandi. Ah. ci discours bi. waaw xam nga discours bi man nag déglu naa ko déglu naa ko ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu jeex mais daal xam naa ni discours bi mu def. am na sax ñu ma gis ñu ñu ñu ñu def ci benn titrage def ci ni discours bu historique la Yérim Diassé parce que wax na yu bari et puis gis nga dafa am euh, loo xam ne yàlla daf koy defal doomu aadama bi te loolu du yàlla ñëpp la ko jox dafa am lu ñuy wax la culture culture de l'entendement xam nga ko Yérim jaase yoo xam nga ko mooy fëhma du yàlla du ñëpp la ko defal fëxum boobu nag moo manqué ñu bari ñuy def politique te dafa nekk ci président Ousmane Sonko. beneen bi itam yàlla defal ko moom mu am ce qu'on appelle al xikma muy la sagesse. sagesse boobu nga xam ni borom bi defaloon na ko Luqman sagesse boobu suñ borom daf ko mayul président Ousmane Sonko.